dal leen ak jàmm ñu xëy taaxaan yéenekaay xëyandoo bi ne ne jéyee moo ngi wéy di si am ba léegi yéenekaay bi ne naka doomu Sénégal yi nekk foofee ca Maroc ca Daxla di xaar ñu jubuub juróom-ñeent fukk ak benn daw yoo xamante si ay doomu réew la di dund foofu nag mettit woo xamante si kenn mënoo si ko wax foofee ca Maroc yéenekaay bi ne am na comme si xëy talal micro moo ngay àddu nee na fii ñu nekk nag ñoo ngi dund anam yoo xamante si daanaka kenn mënee su koo gis kenn mëneesu koo dégg ndax kilifay Maroc yi dañ ñoo bàyyi léeg-léeg sax du am lu ñu lekk du am lu ñu naan toilette nag waxi noppi maanaam gannaaw kër duñ fa mun a dem yéene kaay bi ne conseil consul nag moom sax bindaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi maître Moussa Sarr naka moom yekkan lu mel ni xeme ne bu procureur boobu enquête yéen kaay dikk ne Sonko naka daanaka amagum na gain cause réinscription maanaam binduwaat ci liste électorale yi ndax yoon may na ko ko wala ko di procès boo xamante si ñeel radiation du fichier électoral juge Ziguinchor bi naka intégrate na Ousmane Sonko les minutes duñ audience houleuse naka audience bu méttee métti naka la dal di dund foofee naka ca Ziguinchor ni ki démb Sud Quotidien di kat ci loolee radiation Ousmane Sonko ci liste électorale boobee tribunal bu Ziguinchor naka lànk na ba tëdd suuf nee na Ousmane moomee nañu ko bindaat ci liste électorale yi Sabassy Faye naka ordonné na intégration leaderu Pastef foofee naka ca fichier électoral ba ndax jàpp naka yoon may na ko ko le juge l'état grippe sur la machine état bi naka bàyyiwul ko gannaaw ay waxtu yoo xamante ne le juge boobu récusé na par l'attachement judiciaire de bi ne nag delluwaat na Sonko ci jeu électoral bi la bataille finale loole nag fan lañ koy joué ca cour ndax gars yi na bàyyeeguñu danañ yóbbu cour suprême mbir moomee ba xool nag ana fi ndax àttekat bi la mu wax am na wala am lu muy dem su ne audience boo xamante ni juge forme ak pourvoi en cassation yéenekaay bi xëy na nag bind Ousmane Sonko double claque pour l'État nag fin wax nag naka waaye naka attekat bi jox na dëgg Ousmane Sonko ci biir yéenekaay bi maître Ciré Clédor Ly naka moo ngi àddu ni nag kang bu Sonko naka niki ajuma ji nag mun bu ñu ko doon atte foofee ca diwaanu Ziguinchor Ousmane Sonko am na gain de cause Sonko revient dans la course le quotidien moo ko koy waxee noonu nana juge boobu nekk mujjee na ko dellowaat ci liste électorale l'état bu moom fintoon en pourvoir de concession naka fintoon Afia Sonko gagne à domicile bés bi le jour moo ko wax ndax sa moo ne foo Sonko foofu lañ ko atte woon waaye nag mujjee naa amaat gain de cause pour a binduwaat ci liste électorale yi Le Soleil waxu ca loole la mu wax moo di présidentielle 2024 candidat à la candidature nee na si ñoom ñëpp naka fintoon yi bëgg moo di jiite réew mi cay réew mi réew mi ndaw meeg 234 candidats ëpp na Tribune yéen na gouvernement de mission gouvernement nag ca la Sénégal gannaaw tirage au nag yéene kaay bi ne am yi nag jàpp nañ ne tàng na jër moom la Sénégal war a tàmbalee nag ci Coupe d'Afrique boobee nag foofee ca Côte d'Ivoire ñu wax ca lamb ak choc du 5 novembre bi ñu dal di dëgmal passe d'armes entre le roi et son challenge Ama ak Balde ak Modou Lo fi ñu toll nii mayeetuñu dara ku nekk yaa ngi dànkaafu sa morom Modou Lo di artu nee na yee Ama yee Ama yee moo koy déranger ku nekk fi naka moo ngi napp sa morom ci ay kaddu lim ci doon lu ne naka combat ba la ca des bëreetul naka wiiri wiiri jaari ndaare ji dina sàjjaat ci diggante ñaar ñooñu Ama Balde Modou ñoo ko déggandoo